jàkkaarloo yéen ak fii nga xamante ne moo di Thiès Info Thiès TV tey nag dama ànd ak waa Thiès Info Thiès TV dugg biir Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar précisément fi nga xamante moo di Thiali seet si benn artiste comédien benn artiste comédien boo xamante àdduna wër nga këpp koy seetaan muy ci télévision yi muy ci net bi mi ngi def buzz partout dans le monde moom mi fi ñu daal di jéem a waxtaan ak moom découvrir ki nga xamante ne moo di artiste comédien bu mag boobu nekk fii di Thiès kay benn dëkk ñaari gaar kon nag ay ca ñu dem. waaj ñu doon seet. heureusement fekk nañ ko fi kon nag sunu invité baa ngi nii moom mi nga xamante ni moo di Combé l' artiste comédien thiessois bu mag boobu nga xamante ni il est suivi partout au Sénégal et partout dans le monde ñëpp di ko enjoy franchement parler nee naa art nee naa stress jeex jeex na ndax moom mi nga xamante ni moo di jëmm ji toog waaye duñ def lu dul rek toog nuyonteeg moom fas yéene waxtaan ak moom fii nga xamante ni moo di Thiès Info Thiès ci seen émission Thiès Buzz di ci ànd ak la Queen Eva thiessoise baa ngoog ay rek nag. Eh, mi ngoog toog naa ki nga xamante ni moo di Combé artiste comédien boobu du ma def lu rek Combé maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay lu bare bare bari sama xarit <laughs> di nuyu addina yi ñi seetaan yëpp ndax euh, Thiès Info moom addina moo koy seetaan quoi ñu ngi nuyu àddina yi ñuy seetaan yëpp di nuyu tamit euh, sunu mbokk yi nga xamante ne dañoo tëdd si hôpitaux yi feebar ñu leen di ñaanal yal na yàlla yëkkati ak jàmm ak salaam ba seen njaboot di nuyu tamit euh, sunu mbokk yi nga xamante ne xëy na caabi da a féete ginnaaw ci lu ñu tay ak lu ñu tayul yàlla leen fa yàlla jëlee tamit aussi delluwaat leen tamit ci biir askan bi ndax ñoom aussi dañoo bokk si ñun nekk tamit aussi suñuy soppe yoo xamante ne par des fois dañuy nekk foofu noonu waaye dañuy béggee bu baax a baax a baax a baax a baax may profité waale ci occasion bi nii euh, à travers Thiès Info mi nga xamante ne fépp la dugg ci àddina fépp la dugg ci àddina moo tax foog ma jaaree fi ni nuyu waale leen ñoo doon aussi bu baax a baax a baax a baax a baax merci beaucoup mi ngook nuyoo baa ngook dégg ngeen ko artiste bu mag bi ñu fa yéene làng suñu waxtaan rek mën ak moom fi nga xamante moo di seen émission bi di euh, Thiès Bouge Combé euh, nga nekk artiste comédien ndax mën nañ la xam lan moo la dugal ci mbirum mbirum théâtre waa mbirum théâtre nag euh, li ma ci dugal donc euh, passion la euh, et en plus tamit mu nekk ci man benn amour benn virus boo xamante ne bii nii dañ ma ko branché ki ma ko branché nekk sama grande sœur pikiir ma ko pare daal dem bàyyi ma ci <laughs> yàlla dogal nag virus boobu noonu topp ma ba suñu joon yàlla tey lool noonu daal def naa ne moom moom ma gën a yokk dugal ci biir théâtre quoi milieu milieu théâtre bi. mais gars naka lañ la découvrir. waa euh, <laughs> xam nga tamit aussi euh, euh, yare talent par des fois donc mën nga am talent te doo ko yëg mën nga ñàkk bañ am talent aussi tamit foog ne am nga talent donc man xëy na peut-être li ñuy wax comme talant bi nekk nii tey ci man yëguma ko woon wax dëgg si neex yàlla ndax xaw ma woon ne sax mën naa lii nii tey ma mën yàlla dogal mu boole maag groupe bu baax muy troupe royukaay ñu am fa tamit sunu président bu baax lool président bu oyof président bu mën a uuf ay njaboot muy lii ma koy nuyuwaale bu baax a baax a baax mu teg ma ci loxo Alassane Gueye donc mu nekk suñu metteur en moom moom moo ma moom moo taal moo yee li nekkoon ci man te xaw ma ko woon yëgu ma ko woon moom moo ko moom moo génnewaat beneen personnage boo xamante ne bii ne xëy na peut-être dafa nekkoon euh, ci sama biir di nelaw moom mu yeewal ma ko quoi franchement. Euh, kon don bi nekk ci yow da ko yee noonu rek mais boolewoo ci euh, formation maanaam ci wàllum théâtre bi. bien sûr mooy li wax ni ni xëy na mooy li ma la wax ne mën nga am don te doo ko yëkk mais foog ñu yee ko li koy yee nag moom mooy euh, formation bi ngay def ndax euh, yàlla daf ma booleeg ñoo xamante ne bii ne dañoo yàgg ci milieu théâtre bi xam xëy na peut-être euh, entre personne ak personnage bu baax a baax a baax mën leen ràññetle ñooñu noonu tey ñoo ma formé ba dindi ci man Euh, euh, euh, xamal ma ne lii mooy personne bi lii mooy personnage ba tey xëy na peut-être mbubb boo ma jox mën naa ko sol dem ak moom te su ma paree dama koy simi wékkaat ko fa bu nekkoon defaat ko nag ba mu rafet comme na mu meloon waat ko fa franchement. mais ndax yaa ngi fàttaliku pièce bi nga njëkk a joué ci wàllu théâtre. pièce bi ma njëkk a ci wàllu théâtre sur scène la. waaw ndax ñun dañoo nekkoon ñoo nekkoon Thiès fi defe naa ne seul troupe boo xamante ne dañ daan répété ba jour tabaski kese la ñu répété waaw mais lendemain tabaski sax dañ koy répété. dañ koy répété jour corté bu ñu corté ba si guddi si dañuy daje dem répétition donc dañu dañ daan répété tous les jours maanaam dañoo mbappat ci euh, théâtre bi ñu def li ma njëkk a joué sur scène la te maa ko njëkk a defee fii nii école Thiali. Ah, xam naa ne fi mu toll nii sa fans yi yàkkamtu lu rek combe euh, may leen benn guub bu ndaw rek ñu sentir carément seen artiste mi ngi ci ci kanamu caméra yi du ma def lu rek bàyyi la rek nga mosal leen benn affaire bu ndaw rek ñu soog a enchaîner. xam nga <laughs> nga xam xëy na peut-être dafa am ñoo xamante def one man show. am ñoo xamante ñuy def ñoo mm-hmm. xamante ne leneen leneen la ñuy def mais ñun li ñuy def théâtre la bokkut ak one man show tey one man show nga taxaw fii nii show wax benn kii affaire na naa sang nit ñuy def dafa am xëy na peut fu mu laaj man maanaam dafa laaj seen laaj euh, donc donc public bi toog mais ñàkkul ni am nga lépp boo leen boo mën a def ndax fi toll ni ngay dindee stress moom fi toll yaa ngi côté bépp nag comme yow côté bépp nga nekk yaa ngi côté bépp yow wax nga ko fi léegi nee na bu ñu la jox ba sax man si comme ça man si comme ça naturellement complexe la donc <laughs> su ma xasee wàcc moom ci kaw seen bi ah parce que moo doon la sérieux naxee nit ñi ay complexe la mais non xool sérieusement nag complexe la moom man moom si comme ça waaw mais noonu la euh, ba tey rek lépp loo xamante ni rek ci wàllum théâtre la mais tey ji ñu ngi la njëkk a ñu ngi la gën a xamee ci côté comédie. Mhm. ci côté comédie nga ëpp li ngay joué yaa ko choisir wala personnage bi ñu la jox la. waa euh, xëy na peut-être bu ñu demee ci côté euh, téléfilm euh, man comédie actuellement ni moom la ëpp ci li may joué. mais defe naa ne ay fan yu ndaw nii rek di si fii ci kanam. ñu ngi mhm. waajal leen lu bees loo xamante ne bien dinañ gisaat waat beneen personnage bu bokkut ak bañ daan gis. ndax mhm. temps bu nekk dafa am lu mu donc xëy na peut-être temps boobu noonu loolu la laajoon beneen temps aussi bu laajaatee leneen rek ki koy jox ba mu mat sëkk mais man bi may soog a def théâtre li ma njëkk def euh, euh, nekkul woon comédie donc ba tàyyi dama ba tàyyi ba tàyyi mm-hmm. xëy na peut-être nit ñi biñ may xam ne yàlla dafa dogal ci comédie lañ ma xamee te euh, loolu la téléfilm bi laajoon moo tax foog ma jox ko askan bi ba ñoom ñu miin ma ma soog leen a wanaat nag sama yenn personnage yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkaat ci man mm-hmm. mais est tamit Sénégal boo leen tàmmalee benn affaire ba pare bëgg leen joxaat leneen est-ce que dina yomb tamit. bëgg a changer vite fait sa personnage di jóge ci côté comédie bi demaat. waaw bu ñu dee wax nag euh, professionnalisme mooy loolu noonu. donc nit da nga war a da nga war a da war a mënee côté yëpp. mooy yow su fekkante ne def nga formation bu baax a baax formation bi dugg na. mokk na ak yeneen ak yeneen. Euh, ñun xëy na peut-être école la man théâtre bi ñu def nii ci ñun école la da ngay commencer euh, primaire boo fa génnee daal dem seconde boo fa génnee dem feneen ak feneen jàll lycée ba am sa licence am yeneen. yeneen ak yeneen ñun ba léegi ñu ci école nii di jàng mais gëm naa ne sénégalais yi donc euh, leneen li ñëwaat bu ñu leen ko joxee amaana sax dañ naan lii dañ leen ko yéexoon a jox ndax xam naa ne leneen liy ñëwaat moo dàq sax la fi nekkoon. Mm-hmm. <laughs> donc leneen liy ñëwaat mooy dàq sax li nga xamante ni moo fi nekkoon euh, ndax mën nga ñu dikkal tuuti sa complicité ak bi nga am ak euh, ma ñuq Badiane. ma ñuq sama frère la sama sama sama mag la. sama xarit la dañoo bokk benn deret loolu moo tax euh, xëy na peut-être deret bi daw ci moom te daw ci man moo tax dañuy déggante dañuy déggante bu baax a baax a baax a baax a baax baax peut-être euh, euh, mën nañoo mën nañoo toog sax 15 jours yoo xamante ne bii ne man ak moom duñ toog répété duñu gisante duñu kii naan loolu dañuy déggante tout le temps ñu ngi waxtaan ndax tamit aussi kenn ku ci nekk am nga xëy na peut-être sa business boo nekk yaa ngi ci di di di di évoluer affaire noonu tout ça mm-hmm. Mm-hmm. mais il ne ça tourne action mooy deret yi jaxasoo nañu moment boobu moom donc day nekk entre ma ñox ak kombe dañoo yëgante dañoo déggante ba bu kii ne bu kii ne allah kii daan na ko laa ilaaha la mu ngi noonu <laughs> jàngi waaw parce que tellement que déggoo bi dafa jaaxal ñu bari kat ñu bari dañ naan est-ce que ñaan yi li ñuy wax ni dañ koy dañ koy répété est-ce que des fois bi ñëw naturellement ci ak xam nga mooy li ma la wax yàgga liggéey la yàgga mbapat la te man ak moom dañoo mm. dañoo dañoo yàgga boole sunu sunu sunu sunu ànd boobu noonu du tey bi dama door ci théâtre rek moom moo ci jiitu nag mais dama dama dama dugg rek ànd ak moom maanaam dama dama dama dama judd rek ànd ak moom comme niñ koy waxee dama judd ci mhm. théâtre rek nàmpandoo ak moom ànd ak moom màggandoo ak moom kon defe naa ne nag euh, suñu miinante bu mu jaaxal kenn <laughs> waaw loolu la de <laughs> ñaar yàgg ànd du mbappat moom macha allah rabbi day dem day am euh, complicité boo xamante ni rek kenn ki boo xee rek kenn ki ci des na xam fu muy fu muy fu muy daanelee mais est-ce que dëgg aar bi dëgg dañ koy jàng aar bi bien sûr Euh, euh, damay laaj est-ce que euh, li ngay def ni da nga ko jàng wala. waaw am nañu jàng nag am na ñoo xamante ni mooy loolu. xam nga dañ naan don am na don am na yàlla da koy maye. Mhm. mais boo amee don. même boo amee don dafa am ay techniques yoo xamante ne bii ne li ngay def da koo laaj. ndax xëy na peut-être euh, professionnel bi toog di la seetaan euh, man amateur bi lay xool li may gis du bokk moom li muy gis kon kooku moom foog nga wan ko moom mën a gis euh, lu original li ngay def maanaam mm-hmm. wan ko technique yi nga xamante ne bi ne moom koy utiliser wan ko mode yi nga xamante ne tey xëy na peut-être mën naa génn fii tey dem ci benn scène boo xamante ne ay scène tubaab la mm-hmm. comprendre nga ñu ne ma Combé demal demal demal demal jardin ñu ne ma yéegal ci kaw seen nga dem côté jardin su ma xamul jardin fan laay dem su ma ko jànguloon fan laay dem demal côté cour su ma xamul cour fan dem ah, seen demal avant seen ma xamul fan laay dem donc tey moment boobu maa ngi jaay dama man professionnel la xam naa métier mi yàgg naa ci at te et pourtant yi gën a yi gën a terre xaw moo ko mais loolu da loolu noonu tamit aussi nag defet la mais foo ko nag nga dem école dem jàngi jiwaat ko bu la yàlla mayee don bi nag ba pare après don bi dafa am naa ne kenn ku ci nekk euh, calcul da nga koy juddwaale da ngay da ngay mooy lii mooy deux naa di nga xam ne yow sa baaraam juróomi baaraam la mais ko tasaaree jox la ko pour nga pour nga pour nga boolewaat ko nga a jafe mais loolu foog nga dem jàngi jiwaat ko dèjà amoon nga don ba pare mais foog nga dem jàngi jiwaat pour nga mën ko montali parce que boo gisee maladie loolu am na ñoo xam mën nañ am don bi mais dañuy dañuy nekk ci école yi di def spectacle affaire nga xëy un bon jour rek gis leen ci série ñuy dem léeg-léeg nag nit kiy seetaan mu dina xam ne carrément kii li muy joué des na na mais yéen ñi nga xamante ni yéen ay artistes yi est-ce que loolu bu ngeen ko gisee di ngeen di ngeen ci jug bàyyi ci seen waar. xam nga par des fois aussi tamit. Euh, mhm. euh, euh, na certaines personnes yoo xam ne dañuy jaawale théâtre ak téléfilm. téléfilm n'importe qui mën na ko def yow mën ko ko def mën naa ko def keneen keneen mën na ko def mais bokkut ak théâtre donc théâtre dafa laaj da ngay jàkkaarloog sa public théâtre dafa mm-hmm. laaj say costume théâtre dafa laaj seen bi théâtre dafa laaj yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen moment boobu noonu moo tuddu théâtre mais li ñuy def nii téléfilm la xam nga man tey nga ñëw jox ma sa micro di ma laaj ma lay tontu tey su ma tontee loo xamante ne bi ne leer na ma ne baaxul dama naan leen coupé ngeen jégal ma kat est-ce que du ngeen ko changé ngeen def nangam ak nangam te bu ngeen ko changé waate donc dafay gis ne lii dafa net te alors que bi may njëkk wax dof laa netul woon mais ñi nekk sama ginnaaw ñoom ñoo may dimbale pour a net kon loolu pour nga def ko dina yomb ndax am nga ñu nekk sa ginnaaw di la dooleel naan la waxal nangam bàyyil nangam waxeel nii toogeel nii defeel nii defeel na loolu noonu c'est très simple kenn ku si nekk mën na ko def mais bokkut ak nag ñun théâtre bi ñuy dund ñun théâtre moom la ñuy dund mais pas téléfilm téléfilm bi xëy na peut-être euh, benn benn benn benn euh, avantage la boo xamante ne bii ne tey boo génnee euh, war a gisanteek yenn yenn yenn ONG yi war a war a war a am yenn partenaires yi ouverture bu mu lay may la pour nga xamante ne foo dugg nañ xam ne kat kii mooy diw donc kii mooy diw boobu noonu nag am na aussi ay portes yu mu lay ibbil portes yu mu lay ibbil nag boo fa duggee tamit aussi théâtre rek nga fi mën a yóbbu ndax ñun amuñu leneen lu dul théâtre franchement. mais comme naka ngeen gisee li nga xamante ni moo di série yi yu bari yi nga xam ne moom la télévision yi di dawal. waaw sant yàlla d'après man. Euh, man mbégte la mbégte la ci man kontaante la ci man tey su ma gisee série euh, bari biir Sénégal ndax euh, bu ñu fàtte ne ci ginnaaw tuuti rek Nollywood dafa ñëwoon nangu woon nangu woon nangu woon télé télé télé ok télé sénégalaise yi donc kenn du seetaan leneen lu dul Nollywood comprendre nga mais tey bu ñu demee ba grâce sunu acteurs yi nga xamante ne bii ne yàlla daf leen a may talent lool macha allah donc ñu ñu ñu nanguwaat lool noonu ñoom ci loxo ñag yi indil leen pire sénégalais donc di leen wan li nga xamante ne bii ne ñun moom la ñuy dund di leen wan li nga xamante ne moom moo am suñu biir kër yi di leen wan li nga xamante ne bii ne moom moo am ci sunu ci sunu ci sunu ci sunu société bi euh, euh, man loolu dama koy sante yàlla ndax euh, kenn ko ci nekk kuy def théâtre ragal naa ne loolu nga doon ñaan yàlla mooy dem ba nga xamante ne tey sunu sunu sunu sunu aar bi ñuy def moom mooy nangu ñun sunu culture donc ñun suñu culture bi ñu def donc ñu fexe koo ñu fexe koo jëmmal ci biir ci biir ci biir ci biir askan bi ba kenn ku ci nekk bu dee xool di gis boppam moom moo gën man su ma restaurant may gis benn indo bi nekk fële demoon na ba euh, daanaka jigéen ñëpp ay solinu indo lañ doon solo demoon na ba ba ba benn moment donc ñag yi dañoo ñëwoon domine nañu dem ba xale jigéen ñi après yu gàtt la ñuy sol lu leen neex la ñuy def affaire na naasangam yaakaar na ñun loolu suñu culture la te alors que ne ñun moomuñu ko léegi nag bu ñu demee ba ñun ñu nanguwaat na ñun li ñu moom li ñu li mais tamit bu ñu demee ba li nga xamante ni moo di ONG Jamra di di di di poser problème ci série yi nga xamante ni mooy daw ci ci ci Sénégal est-ce que trouver woo ni yow carrément ni euh, série euh, film série yi euh, des na quoi tamit. non non ñun suñu série dafa original. amul dara lu ci des wax dëgg si amul dara lu ci des xam nga xam nga xam nga. c'est-à-dire que parce série yi tamit ñun euh, yéen lañ ci doon séentu maanaam euh, comédien ak théâtre kat yi yu mag yi nga xamante ne ñoo nekk Thiès wala ñoo nekk ci Sénégal adduna wërngal këpp mais bu ñu demee bay gis yeneen im yeneen visage yoo xam ne ay mannequin ay mannequin wala ay yeneen yeneen personnage yoo xam ne ñëw foncé wu ci ci milieu bi pour nangu pour nangu see parce que daanaka ñu ci bari ñoom ñoo fees léegi yéen daanaka ñu ci bari yéen da ngeen dañoo suulu. waaw man en tant que man en tant que uh-huh. en tant que comédien man loolu man bañu ma loolu man dama bëgg torop concurrence man lool xaw ma lan la mais lu naturel la ci man dama ko bëgg man sama xol dama bëgg concurrence mais concurrence bu positif pas mu négatif. concurrence dafa war a positif mais pas mu négatif tey boo xoolee euh, euh, euh, côté côté côté Nollywood wala yenn kii naasangam da ngay gis benn film ñaata producteur ñoom ñoo koy réaliser donc am pagaay ñoom ñoo ñëw boole seen doole kii mooy def une bi kii def deux kii def saison 3 kii def saison 4. donc da ngay gis ne ku ci def rek dangay ngay bëgg a sa bopp bu baax a baax a baax concurrence boobu noonu dafa neex tey su ma demee ba gis benn kenn donc ñëw dugg ñun si sunu ci sunu milieu ma gis say benn benn benn koo xamante ne bii ne donc da jaay boutique ñëw dugg sunu milieu mais ñun sunu milieu moo neex. moo tax kenn ku si nekk daal di ñëw wàllu yan si mais man loolu dama koy sant yàlla ndax man tey su ma bu njëkk suma ma fàttalikoo boo daan def théâtre donc fi lay classé du baax donc fekkate ne jigéen nga ñu ne caga nga baal ma terme su fekkate ne góor la ñu ne góor jigéen la mais tey bu ñu demee ba ñi ko doon wax tey ñoom ñoo wëlbatikuwaat bëggal ko ñoom seen bopp kon sant yàlla ñoom bu ñu ñëwee tey ba di ko xëccoog ñun sant yàlla mais nag nañu xam ne roy da yow li nga jàng ba mën ko du bokk ak koo xamante ne xëy na peut-être tey dafa xëy rek rek daal si wàllu yaan mooy li ma wax sànq téléfilm ku nekk mën na ko def n'importe qui mën na ko def te day neex comprendre nga mm-hmm. mais théâtre foofu moom mooy foofu mooy wax ja est-ce que ñoom dinañ ñëw pour def ci théâtre man kaa boobu noonu sax bref damay pousse comme li nga ma laaj ci ci ci ci ci ci ci gars yi doon kaas ci série boobu noonu affaire na naa sangam euh, xëy na peut-être man ñii kaas dama naan dañoo bëgg a kaas rek mais Sénégal nañ nañu waxante nañ waxante li fi nekk yow da ngay toog sa biir kër. nga dégg magum jëmm mu saaga xale bu ndaw. am na mais da nga koy dégg. tey nga ne ok dama bëgg a taxaw tey pour wane ne saaga bii mag bi saaga ni baaxul mais léegi pour mu wane ko damay def mag bi taxaw saaga xale bi bu saagaa xale bi askan bi yëpp gis ne kii saaga na kii kële ñëw jàngal mag bi ne ko saaga xale baaxul mais pour mu jàngal ko foog mag ji saaga mais bu mag bi saagawul ok bu taxawee daan na ko daan na ko daan na ko nàngama sàngam rek léegi yow da ngay ñëw daan ne ok saaga baaxul na te alors que ni kii waxul saaga mais nañu wane li li li li société bi di dund tey série boobu li muy li muy euh, li muy wane ñun dañ koy dund saa mu neex ak mu naqari yow nga gis ko ak nga bañ koo gis moom moo fi am mais Sénégal dafa am parti boo xamante ne dañuy dund loolu par des fois comme par exemple man si marié dama am sama jabar am samay doom am yeneen kii ak naa sàngam te mën naa wala kon si suuf dem di doxal mais loolu man su ma ko nëbbee tey kii kii kii kii bind xam ne Combé kat am na jabar mais mu ngi doxaan mu bind ko mais man ma dem ba sama gel di ma gënal par des sama jabar wala ma yamal leen ñoom ñaar comprendre nga ñun ñu wane waat ko waat askan bi wan leen ne man kat lii laay dund mais loolu est ce que baax na wala baaxul après askan bi ñoom ñooy jugé yow nga ne ma déedéet man loolu waruma ko wane si télé ndax parce que donc damay yàq xale yi te alors que ni xale yi ñoom ñu ngi koy seetaan par des fois nga nga sa télé nga jàpp Nollywood wala nga jàpp yeneen film yeeg affaire na naa pourtant da ngay toog benn kër papa toog yaay toog ñëpp toog ngeen seetaan film boo xamante ne nekkul Sénégal comme ay film Van comme ay film Rambo comme ay yeneen ak yeneen ñu dem ba benn moment ñoom seen biir ñoom ñuy sëy yow nga toog nii di ko seetaan ak sa njaboot doone lii nii baaxul mais nañu wax ci yoonam te et pourtant ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy export di ko indi fii ni suñu biir suñu biir euh, ci biir Sénégal ñun ñu koy seetaan di ko di ko consommer nicement par des fois sa sa doom yore téléphone am dugg ci biir néegam donc yor na connexion yor na leneen ak leneen kooku li ko contrôler mais sa commande bu fekkante ne bi ne jege na la ngay seetaan benn affaire bu la arrangé wul zappel bu la arrangé nga bàyyi mais série boobu noonu pour man neex la def man bokk bokk naa ci ñi ko gën a bëgg waaw man moom daf maa neex boo wax dëgg si neex yàlla. kon mi ngoog muy série ak muy théâtre bu ñuy bu ñuy demee bay yeete nañu def exact li nga xamante ni moom la euh, as askan wi. bien sûr même moo yi ñuy utiliser nii entre copains wala ci biir ci biir kër gi ñoom tamit moo yooyu mën nañ ko utiliser ci li nga xamante ni moo. c'est-à-dire que ni bu ñu demee bu ñu demee bay def. Mm-hmm. nañu def pour def. mais bu ñu bu ñu demee ba mënatuñoo def ba ragal def nañu bàyyee def ñun nañ ñu bàyyee suñu liberté. nañ ñu may ngir yàlla suñu tuuti liberté ñu mën a wan askan bi li fi am xam nga par des fois euh, euh, euh, nga toog ci benn koñ ñu ne la benn sëriñ dafay def nangam tey est-ce que ñeme nga ko wane tey télé benn sëriñ bu bu def loo xamante ne bi ne n'importe kenn xamul kenn xamul kenn xamul la lay ndirool mais loolu est-ce que ñeme nga ko wane si télé bi mais yooyu noonu tey boo ko wane si télé la ñuy wax ñi dañoo yàpp diine ji dañuy jéem a daaneel a nangam te et pourtant kii def loolu moom mooy yàpp diine ji parce que donc mu ngi sol mbubu diine ba pare. di foowee diine ci suuf. Mhm. mais nañu njëkk a nañu njëkka a lijjanti loolu noonu ba pare. cest dire que ne diine bi mu ñëwee bàyyiwul kenn waxul oustaz bi waxul waxul waxul waxul waxul waxul mara bi waxul keneen ak keneen waxul kii naawa sangam. diine ki mu ki mu soxla mooy ki nga xamante ne bii ne mooy euh, comme ni nga ko waxee wal asri innal insaan la fi xosrin illa lazina amanu wa amilu saalihaati illa lazina amanu ñooñu noonu ñoom la yàlla soxla. mais wal asri bi mu wàccee donc wal asri inna insaan dafay ñu bari dañoo yaakaar ne ñoom si lañ bokk ndax yàlla moo ne maa ngi giñ ci ak euh, maa ngi giñ ci jamono wala nga ne maa ngi giñ ci tàkkusa innal insaan naka doomu aadama la fi xusrin mu ngi ci pertement mais yan doomu aadama donc nekkul ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy jaamu yàlla yàlla si la leer daan illa lazina amuna ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy jaamu wa amilu saalixaat tey jëf-jëf ju baax wata waasaw ñoom ñuy dénkate bil xaq si dëgg wata waasaw ñuy dénkate bi sabri ci muñ kon ñun nañu waxtaan li ñu wax nañu nañ te dëgg mais bu ñu jël leen yi di ko nës nësal daane noonu kii oustaz la kenn waru ko wax dëgg noonu kii sëriñ la kenn waru ko wax nangam sàngam ñoom nañu seetaan bu ñu gisee loo xamante ne bi ne diine da ko ŋàññ ñu ne lii kat diine tere na ko bu ñu gisee loo xamante ne diine da koo baaxal ñu ne lii na ko mais dafa am loo xamante ne te dafay am nan nu ko nangul par des fois Euh, mi ngoog moom mi nga xamante moo di artiste euh, comédien boobu di Combé nee na bu ñuy jouer nañuy jouer pour jouer parce que moom tamit bu ñuy jouer ñoom tamit dañuy xool li nga xamante ni ñoom la euh, société bi di dund li xamante ni mooy réel bi ñu jël ko dundandoo ko ak ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ñu su ñu ciy def am nañu ciy jëlee li nga xamante ni moo di jàngat am na ñeneen ñoo xamante dañuy def di commenter ndax nit moom kenn mënu ko satisfaire mais Combé ci sa carrière ana lan nga mës a mu mu mu marqué la ci nga jot a joué gum waaw man sama carrière. Euh, ah li mu joué man lépp ma marqué. est-ce que mën naa ko fàttaliku lii moom a gën a marqué lii moom a gën a kii ah mm, man la ma jox a mën nga mën nga dugal dugal ci benn domaine boo xam ne da lay am na am na benn boo xamante ne moom touché woon na ma. mooy benn tabaski bi may bi may bi may nettali euh, euh, euh, yonent bi salaa salaam bi mu jógee bi mu jugee julli julli julli julli itam bay ñibbisi doomam doomam doomam Ibrahima doon ko gàttandu far mu yàlla yàlla yàlla moom ruuxam ci ci kaw dënnam loolu moom jour moo koy nettali ak ak mu ñoo ko bien vrai que ne maa ngi nekkoon ci sama ci sama ci sama pot mais moment boobu moom marqué na ma bu baax a baax a baax a baax baax a wax dëgg si neex yàlla moment boobu mu marqué na ma doole ndax euh, même man sa mbir kër fii sax su ma su ma su bëggee kontaan ba ma bëgg a way yonent bi kese moom laay moom laay foowee moom laay wayantoo moom laay moom laay kiiwee bien vrai que nag par des fois donc maa ngi maa ngi ci zaahir moom bu baax a baax a baax a baax donc damay zaahir comme ñëpp wax dëgg si neex yàlla mais nag mais nag sama xol bi moom rek moo ci nekk. moom moom moom rek moo ci ne te mooy gën gi mbindeef nag moom la ñu war a mën a sopp bu baax a baax moom ki nga xamante ne moo di gën gi mbindeef euh, Kombe lan moo jur Kër Kombe. waa Kër Kombe euh, maanaam ba léegi nii rek ci bëgg-bëgg yi ci la bokk <laughs> ci bëgg-bëgg yi ci la bokk ndax tamit aussi mooy li ñuy wax naan xar day weesu mbote. waaw su fekkante ne bëgg a màgg nekk kuy di mbëkkee da ngay weesu mbote. Euh, damay gis ne à chaque fois donc ñu ngi def théâtre muy neex trop mais tous les jours su ma ko bëggee seetaan ji dem YouTube pour seetaan ji ko comprendre nga ak keneen ak keneen keneen bu ko bëggee seetaan day dem YouTube pour dem seetaan ji ko ma gis que ni tamit aussi toll nañ ci moment boo xamante ne bi ne euh, télé yi euh, askan bi bu ñu toogatee ni di seetaan télé bu ñu toogee ci biir kër yi pour di seetaan télé euh, li ma daan gis bu njëkk comme dama daan toog suñu biir kër sama yaay taal benn télé moo fi amoon moom lay zappe ñun ñëpp ñu seetaanandoo ma gis ne loolu amatul léegi ñun ñëpp suñu téléphone la ñuy nekk ñu ngi seetaan YouTube bi lu ñu tàdd télé YouTube lañu ko seetaan yenn kii ma ne ok kon xam naa ne kon fii la système bi nekk bàyyil ma dem kari ji askan bi ba lépp lu ma bëgg a jaarale ko foofu noonu comme que fa laa ko mën jaarale ma ne nag sama biir kër laa koy commencé mu tuddee ko kër Kombe donc mu nekk Kër Kombe et en plus tamit mu doon benn groupe WhatsApp boo xamante ne bii ne samay samay soppe yu ma bëggoon lañu samay soppe yoo xamante ne dañ maa dañ maa dañ maa bëgg lool jàppale ma sama carrière mayoon ma benn journée bu mag a mag a mag a mag a mag a mag fii biir Thiès ñoom aussi tamit groupe bi tudd tamit Kër Kombe no stress donc ma ne ok comme que ñaari kër yi nag daje nañu. Ah, bàyyi la ma photo bi <laughs> waaw waaw waaw waaw photo bi fa <laughs> <laughs> loolu daal moom mooy kër Combé no stress <laughs> mu ngi noonu. mi ngoog nga choisir li nga xamante ni moo di YouTube bi mais Combé euh, naka nga defee sa sa sa casting équipe bi. waa casting équipe bi nag euh, euh, bi ma koy def après sama sama sama événement bi ma defoon. ñu amoon ñoo xamante ne bi ne dañ cee taxawoon jàppale ma bu baax a baax a baax ku ci mel ne Baye. bàyyi nekkoon ci journée bi sonn ci lool boo dee xool publicité yeeg yenn kii yéeg loolu lépp moom moo ko doxal moment bi ñuy def nag euh, publicité yi affaire bi marqué ma quoi ma gis ma gis que ni euh, euh, su ma dugalee benn vidéo nit ñi dañ koy aimé bu baax di ko seetaan bëgg bàyyi ba nga xamante ne bii ne man xaw ma sax na man nu mu fa demee noonu et en plus bu dee joué man ma koy seetaan damay gis ci moom benn affaire franchement mu nekk koo xamante ne dafa am talent mën li muy def ba pare bëgg ko ma ne ok bi ñu génnee ci journée bi nag net man na ko booy kaay est-ce que dañu essayer faire ñu liggéey ñu def nangam nangam nangam nangam nangam nangam moom aussi mu gën ma koo bëgg sax que man a ko ok ci laa woote Kassine euh, jël ay talent yoo xamante ne bii ne ay talent caché lañu euh, kenn xamul kenn kenn xamagu leen woon ma ne naa essayer donc ñii nii ma def ci ñoom dara te yàlla suturaal na ma ci ba am naa ci ndam ndax askan bi yëpp bëgg nañ leen saison une bi ñëw na neex saison deux bi ñëw tamit dar koy jogati wax dëgg si neex yàlla. <laughs> mais tamit liggéey bi liggéeyu Kër Kombe naka lay demee. waa liggéeyu Kër Kombe mm, yomb na yombul. ndax man dama bëgg lu original dama bëgg lu baax dama bëgg lu rafet. par des fois donc neer yi tàng par des fois mu métti par des fois mu neex dama bëgg mm, loolu lépp nag question de bëgg lu baax rek la. léeg-léeg donc ma wax ci nit loo xamante ne lu ko naqari la wala léeg-léeg ma wax ci nit wax joo xamante ne ak benn ton boo ne dafay xaw a dëgër euh, may profité waale aussi di leen jéggalu ñoom ñëpp képp ku képp kuy euh, artiste boo xamante ne mës nga jaar ci biir kër Combé TV rek ma liggéeyandoo ak yow maa ngi lay jox sama loxo di la jéggalu bu baax a baax a baax a baax ci bu ma la waxee lu neex ak bu ma la waxee aussi lu naqari mais du Combé rek ginnaaw kër ginnaaw Combé dafa am ñoo xamante ne bi ñoom ñoo fa nekk di ma dooleel comprendre nga ku ci mel ne euh, sama cadreur bi Moussa Ciss donc moom moo nekk ci ginnaaw moom moo yore caméra yi en même temps aussi moom mooy monter euh, film yi ñuy def noonu yëpp. comprendre nga ndax dañu naan peccum liir bu neexee ndey jàpp ci mbagg ya donc ñoom maam Thierno maam Thierno aussi tamit euh, moom mooy yore son bi mooy ba am même temps seen du joué waat ci biir <laughs> waaw xam nga loolu nañ kon yombul ah gis nga xale yu léegi léegi nii mu ngi noonu <laughs> ñoom ñëpp daal jàpp ci soppe kii astaxfirullah di moins dégg man man sax euh, saw saw Ousseynou nekk tamit ci côté euh, bind beeg yooyu noonu ak Alsane Gueye ñëw jàpp tamit ci réalisation bi euh, franchement mën naa ne daal ginnaaw gi moom moo dëgër. ndax ñi nekk sama ginnaaw di ma puus donc ñu mooy poussé ak xol lañu di ma jàppale bu baax a baax baax a baax a baax ñoom aussi de passage tamit ma leen di jéggalu bu baax a baax indi nga première saison gars yi apprécié nga indiwaat deuxième saison mu neex lool tamit mais déjà j'espère que yéen yéen commentaires yi ñu ci bind parce que nit ñaa ngi apprécié ñi ci des ñu ngi leen di jox ay ay suggestions ay critiques yaa ngi daw yooyu yëpp naka naka ngeen koy gérer. waa yooyu yëpp nag dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy euh, gérer xol bu rafet. Mhm. comprendre nga ndax euh, man bëgg naa lépp lu ma def euh, man dama soxla critique ndax xam naa ne li may def baaxul moo tax soxla naa nit ñi di di ma critiquer compane ga ndax critique boobu noonu moom mooy tax suba nga mën nga mën a nga mën a jàng bi may soo koy commencé kër baay su ma ko dee su ma ko dee dugal par téléphone laa ko doon dugalee. tey dem na ba yàlla may ñu ay matériel may ñu ay yenn kii rek affaire na naa sànga moment boobu noonu sax si laa doon gën a dégg critique ndax da ngay dégg par des fois ku la ne non son bi baaxul ku la ne non image yi leerul ku la ne nangam sàngam tey maa ngi tey euh, critique yooyu noonu yooyu noonu doon dégg moo ma doon poussé su ma déggee ni daane nangam bi nii baaxul ok damay essayé faire daal laay fàttee nangam boobu noonu bu ne waatee beneen nangam bi baaxul moo xool laa koy nan laa koy jéem a fàttee ba tey xëy na peut-être ñu ngi ciy bu baax a baax a baax a baax baax ba yenn tur yu bëri bu yëpp fàttul moom ragal naa ne ci des moom bareetul quoi. mais <laughs> lu tax Kër Gombe sentir gu ci ki nga xamante ni moo di ma ñëkk. Euh, ah kay xam nga xam nga xam nga boo nee boo nee boo nee Kër Gombe. Euh, mooy moom mooy rek moom mooy rek mu ba ja naa la man ak moom ñoo bokk benn traite mais Kër Gombe lu muy rëy rëy rëy rëy rëy ndax man gis nga ci man sama image. gisaguñu si mais boo nee kër Combé rek c'est comme si que affaire bi yëfu Combé la. Combé moo def yëfu boppam. xam nga xam nga cest à ne. Euh, mel ni Combé dafa détaché wu ci ma ma ñu Coumba Diagne def ne. non non ne xam nga xam nga xam nga euh, monde théâtre bi. dafa am am aussi monde boo xamante ne bii ne monde showbiz la am loo xamante ne bii ne donc àddina par des fois moom moo koy laaj. tey ma ñu ko moom mu ngi ubbi benn boutique bu mag. di fa jaay ay yére ay sañse pour képp ku ko bëgg sax donc man ma saa waxaal leen daw leen gaaw ci mu ñox mu ngi fenn euh, wetu Saint-Jean boo fa ñëwee rek di nga fa am ay yére yu rafet lool donc mu ngi ko ibbi foofu noonu di ko fa jaay mu nekk benn boutique boo xamante ne bii ne bu bu mag mag a mag a mag di fa jaay ay yére yu rafet affaire yooyu mais foofu noonu tey koom nekk fa ndax loolu nag business su boppam la comprendre nga tey euh, Kër Kombe euh, euh, maa ngi maa ngi maa ngi yor ay caméra maa ngi yor ay machine maa ngi yor ay leen ak leen ak leen leen foofu noonu aussi tamit mu ñuq nekku fa mais Kombe moo fa nekk mais lépp même la moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy Kombe Kombe moom mooy mu ñuq amul ñaar waaw ah, parce que dama dama dugg foofu parce que am na ñoo xamante nañ ko santé ñeen ñi ngi koy wax moo tax yow moom yaay sone <laughs> moo tax ma dugg foofu juste rek pour moom mi nga xamante ni moo di Combé euh, mu daal di koy leeral Combé euh, ñu ñëw ci li nga xam ba tey damay des ci li nga xamante ni moo di euh, kër Combé ndax kër Combé ci wàllum comédie rek lay dox wala nañ mën nañu séntu leneen ci kër Combé. waaw mën nañu séntu leneen ak leneen sax ci biir kër Combé nekkul comédie donc kër Combé moom lépp moo fa am yàlla baax na. mais moom li muy wax yëpp da koy répété wala moom da ciy kiiwaale da ci defaale noonu la mel naturellement mën naa. noonu la mel naturel <laughs> mais gars yi tamit ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi critiquer ki nga xamante ni moo di euh, rôle Tima ne fin saison bi sax laay wax di affection bi yaay war a am ci doom doom soo a découvrir yaayam lu tax affection bi foofu courant bi doxul foofu. d'accord euh, xam nga par des fois mooy li ma lay wax euh, dafa am loo xamante ne bii foog nga dem école ñu bindal la ko jàngal la ko ne la lii mooy A lii mooy B lii mooy naaw sàngam nga euh, dafa fekk ne moom aussi tamit dañ koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax mu ngi soogay nekk euh, ci milieu théâtre bi ci ma man moom ñu ngi xamante salle salle d'entraînement bi bu ZAC donc foofu laa daan entraîné moom tamit aussi mu foon ñëw tamit di entraîné donc bi ñu gisantee ma xool kastin bi donc casting bi neex ma euh, ñu toog waxtaan si moom aussi tamit euh, mu doon ko oyof yàlla dogal mu bëgg ko bi mu ñëwee fii tamit aussi ñuy jéem a essayer faire nan laa ko sax ci wax la ti ma amoon na moment yoo xamante ne bii ne bu daan bu daan joué man ci suuf laa daan toog xam naa xëy xëy na loolu xam nga mooy li may wax sànq daan ne la par des fois nañ la ne waxal nangam waxal nangam su baaxul ñu dagg ci suuf laa daan toog man day day dagg ne rek ci kaw léegi bu dee wax benn baat dama koy soufflé benn baat mu wax benn boobu noonu ñu taxawaat ma waxaat ko at beneen ma waxaat beneen ba tey buñ ci amee li ni day sant yàlla. <laughs> waaw parce que parce que moom rôle am moom gars yi remarque boobu euh, téléspectateur yëpp dañ dañ ko waaw dañu boolee def ko quoi. bi tey di wax euh, euh, gisaguñu sentiment bi gisaguñu yenn kii man loolu day nekk ci man fierté. wax dëgg si neex yàlla ndax tey bu demee ba askan bi remarqué ko euh, euh, euh, di santiraat ci moom pour mu jox leen benn benn benn benn affection ci entre yaay jeeg papa ji affaire na naa sangam wala wala ci entre moom ak yaayam man dama naan kon man xëy na peut-être maa ngi li ma sama objectif bi ma bëggoon maa ngi koy jéem a atteindre quoi ndax dama ne woon bi may commencé dama ne damay fekk ñoo xamante ne mos ñoo def théâtre ma fexe koo def ci ñoom te sant yàlla tey ndax nit ñi bëgg nañ ko ñu ngi koy seetaan dem nañ ba def remarque boobu noonu ndam la ci man sant yàlla. <laughs> mi la ci moom euh, sant yàlla mais tamit naka nga lan euh, lu tax euh, Kër Kombe. Mhm. est-ce que mi ngi xaar jóge ci YouTube bi moom tamit ñëw ñëw bégal téléspectateurs yi tamit. bégal leen ci fan. ci ci ci télévision yi. du tax waaw génn foofu pour dugg ci télévision yi. waaw xam nga xam nga mooy li ma sànq. ku ku ku toll ci raam raam rek ngay def. comprendre nga ku toll aussi tamit ci ci jafandu pour pour pour dox loolu kese ngay def donc mënoo toll nag ci raam di dox mënoo toll aussi ci jàng dox tamit bëgg di bëgg di waax mënta nekk. mais kon troisième saison dañ koy xaaraat ci YouTube. Eh, non non léegi waxuma dañ koy ci dama ne la boo tollee ci raam raam ngay def. mais da ngay weesu raam. nga dem nga dem nga dem nga dem jàng dox tuuti boo jàngee dox tuuti après da ngay jéem a waaxu jéem a dëgër sa tànk bu yàggee da ngay taxaw di demal sa bopp. ñun tamit aussi loolu la ñuy ñaan yàlla mais loo gis mu nekk ndànk par ndànk la donc dañuy dañuy topp yoon bi bëgguñu xëy xëy rek daan di teel ndax euh, dañ naan lu teel a sotti am borom. comprendre nga mais dañuy ñaan yàlla di raam ndànk par ndànk ba àgg fi ñu bëgg a àgg ci kàttanu borom bi incha allah rabbi bu soobee yàlla. incha allah rabi incha allah te léppay baax sax ndax ndax kër Kombe nag gars yi nag ñu ngi koy cons bu neex bu yéexee dugg sax fi mu toll ni gars yi dañuy kaas naan heure bi surtout waa surtout ñu nekk euh, en Europe gars yi dañuy naan dee ñu si sóoraale heure bi heure bi waa diaspora waaw yéen maa ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax surtout fan yi tamit aussi toog suba na yéen a ngi ma koy laaj tout le temps tout le temps le temps ah. mais dafa am luñ ciy waajal nii rek ngeen ñaanal ñu yàlla euh, kaw mm. moo tax nag fan yi mu xawoon yéex ni tuuti cas ak booy séeréer aussi tamit deuxième saison bi tamit léegi mu ñëw na xam naa ne première saison mu ngi nii di ñëw nii jeex yàlla baax na ay waay man mii man mii man xam naa ne fi mu toll nii ñi ko soxla bari nañ ndax boobu ba léegi téléphone baa te moom tamit day daal di continuer li nga xamante ni moo di activité te daanaka li ñu cërale woon ci waxtu jeex na duñ def lu dul rek bàyyi la nga def sa tàggatoo rek après ñu joxante dig daje beneen yoon mu ngi noonu ma lay ma lay ma lay bu baax baax a baax a baax ndax sodd nga tamit euh, ci euh, émission bi pour mu am boobu léegi yaa ngi may euh, ma ne la tey suba gannaaw suba <laughs> naan sangam. maa <laughs> ngi ciy tuub tamit waaw surtout surtout tuub bu baax a baax a baax a baax a baax a baax tey jégalu xam nga ak liggéey beeg yenn kii yeeg mu ngi noonu maa ngi ciy tuub bu baax a baax di jégalu tamit askan bi ñu seetaan lépp lu ma fi wax mu jub ñu xam ne yàlla rek moom moo mën lu ma fi wax cause tamit mu dëng tamit ñu xam ne matat doomu aadama la waaye maa ngi tuub bu baax a baax a baax a baax tey jéggalu di ñaan Sénégal euh, comme nañ koy waxee pays de la teraanga teranga boobu noonu sax fi baawaan fi ba àddina bi ñëpp gis ci seen bopp ci kàttanu borom bi merci beaucoup encore une fois. di lay jaajëfal bu baax a baax moom mi nga xamante ni moo di Combé daanaka jot amat a Info di nuyu tamit waa diaspora bi ñoom tamit à chaque fois ñi ngi euh, contrôler à chaque fois ñi ngi xool di suivre fi nga xamante moo di page Thiès Info Thiès TV di xool saa su nekk rek lañ lañ leen indil tey nag Combé lañ leen indiloon ndax xam naa ne Combé bëgg ngeen ko yéen a ko gën a bëgg bëgg sax waa Sénégal daanaka waaye tamit ñun ñoo ko moom suñu kombe la <laughs> wala mu nekk kombe àdduna wërngal këpp rek kon nag duñ def lu dul di leen remercier moom tamit ñu koy remercier di jaajëfal équipe bu euh, kër kombe gi yëpp di remercier tamit équipe bu Thiès Info bi yëpp sama caméraman yi ma àndal di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje à la prochaine ci beneen invité seen émission Thiès Bouge dans Thiès Info et Thiès TV jaa ngeen jëf